thank you asalaamaaleykum mbokk internet enquête 221 journal bi li mu xëyee tey ji di rumeur bi doon arosani ndiki démb ci Diao Keita Baldé waaye loolee bu ñu sukkandikoo ci wiw sport ak Diao Keita Baldé euh, demul Égypte tey euh, demul Égypte di suba euh, di ay kàddu yu tukkee ci agent wam bile maanaam agent Keita Diao Baldé bi li mu xamle mooy doomu Sénégal bi a demul benn yoon signé fële ca Égypte loolu ay rumeur dong la te ay rumeur kase lay doon wax tamit ci Moussa Ndiaye doomu Sénégal bi di évoluer jamono ji ca équipe B bu Barcelone bile sukkandikoo ci Sékou Sédio moom Moussa Ndiaye ñoo ngi koy xaarandi fële ca Belgique club bi ñuy wax a doomu Sénégal bi dina dem foofee def fa ab visite médicale bu lépp yembe dina fa xaatim ab contrat moom Moussa Ndiaye ñu ngi sàkku ci sénégalais yépp nag ñu ñaanal doomu sénégalais bi ngir mu mën a jóge fee ca Barcelone dem fële ca Anderlecht des ci doomu sénégalais yi le ba tey ak Abdou jàlloo mi nga xam ne jamono ji AS Rome bu Mourinho lay waajal ñoom waa AS li ñu bëgg nag ab ko ànd ak option d'achat boo xam ne maanaam bu saison bi jeexee ñoom waa AS Rome dinañu ko jënd ci far la force bu ñu sukkandikoo ci foot mercato waxtaan bi ma ngay woy di dem ci diggante AS Rome ak waa Paris Saint-Germain ngir kat doomu Sénégal bi di Abdou Diallo jóge foofee ca Paris Saint-Germain dem fekk ñii di waa AS Rome bu Mourinho beneen transfert bu mag bi yemb niki démb di transfertu Eric Bailly moom doomu Côte d'Ivoire bile officiel na ca France kon nag Eric Bailly dalal ak jàmm ca Ligue 1 bu France beneen journal bi xamle ab transfert bu mag di Sky Sport ginnaaw bi Manchester United desee ci bile dossier ngir yóbbu doomu Brésil bii di Anthony ca Angleterre ñoom waa Manchester def nañu ci xale bile ak lu toll ci quatre-vingt-quatorze millions d'euros loolee nag la waa Manchester United di waajal ngir yóbbu gune gi ca Old Trafford waa Manchester United li ñu bëgg mooy yokk cere ak dolli ñeex maanaam ci jafe-jafe yi nga xam ne moom la ñuy dund jamono ji des ci Sky Sport mi xamle gonek Chelsea gi di Hudson dina dinañu ko abale foofee ca Bundesliga ca club bu ñuy wax Bayern Leverkusen jamono ji nag maanaam lépp yemb na waaye ab offre kese lay doon ndax kat gonek Chelsea gi amul benn temps de jeu fële ca Chelsea moo tax waa Chelsea bëgg ko abale foofee ca Bayern a ginnaaw loolu waa West def nañu ab offre bu toll ci quarante millions d'euros ngir jënd doomu Brésil bii di Lucas Paqueta ngir yóbbu ko bu ñu sukkandikoo ci Sky agent brésilien bi moo ngi ci ay négociation ak waa West Ham ngir xaleb Lyon bi dem fële ca Premier League a jeexale journal bi ak match nul ba am démb ca Camp Nou match amical bi a diggante Barcelone ak Manchester City mu nekk match boo xam ne kenn dootu ko fàtte démb ca Camp Nou fa nemmeeku mooy terrain bu fees dell foo sànni mbaatu mu tak match bi nag ci fàttali ki nga xam ne moo ko organisé woon mars bi nag li ko sooboon di feebar bu tudd Ela nekk ca Barcelone moom feebar bile sax dafa dal ki nga xam ne mooy unse ba tax na ancien gardien bu Barcelone bi organisé bile match ngir rek xeex bile feebar moom unse ginnaaw kàddu yi nga xam ne yëkkati na ko démb ca stade bile am na ñu bëri ñoo xam ne dañoo bënn sax seeni bët di jooy ngir kàddu yu daw yaram kàddu yoo xam ne kenn mënu ko dégg mbokk yi fii la ñuy yem ak yéen bu leen fàtte benn yoon di abonné ak like suñuy vidéo lu jëm ci wàllum sport